parce que li ñu gëm mooy ñoom ñu ngi ci dëgg mais dañu bëgg Sénégal gépp jàpp ci li nit ñi def le 17 déjà dañ ko rafetlu parce que le 17 jour bañ la woon nit ñi génn nañu xeex nañ ñu waat leen le 29 incha allah je suis certain que daañu génn mais liy teew mooy suba le concert bi ñu woo gars yi tey tey ci tey tey ci guddi xam nga ñu ngi ci fête de la musique na ñu defal concert gaa ñi ñu xam ne réew mi askan wi dañu sonn dañu tàyyi dañu dammata daañ ko wane ñuy wax tey su vingt jotee ñii nañu nekk ci mbedd mi ak ci tali bi nañu klaxonné ñi ci kër yi nañu tëgg sabar ba mu xumb ci mbir mi malaanu kiir laay ay député yoo xam dañ leen teg loxo tey est que malaan am na njëriñ ngir député. wax ma rek kañ la assemblée jóg défendre député lu dul yéen ña bokk ca majorité ba wax leen ma Sénégal gépp témoin lañ kañ la ñu mas jàppale ab député bu bokkul ci majorité bi. donc bu nekk en mission. même député bu nekk en mission assemblée ma su ko jàppale. voilà ma ngoog bokk donc xam nga kii député la. xam na ko mais cas yi weesu yëpp rek. Mm-hmm. wax leen ma kañ la assemblée mas jàppale député jamais donc cest à dama bëgg nit ñi xam fi ñu tollu ci ñun état d'esprit dañu xaaratul dañu yaakaaratul dara ci gaañi xam nga li ñu wóolu ànd ak askan wi xeex jàmmarloo parce que li ñu bëgg nag ñoo koy jox suñu bopp ak ci kàttanu yàlla loolu la ñu gëm léegi parce que fépp foo xam ni ci lépp loo xam ni ci noo xam ni waroon nañ ko wéeroo jàppoo yaakaar ni loolu war na mën jouer rôle ci état bi ak ci réew mi lépp narmeelu na lékkay ñun dong ñoo fi des moo tax ñuy rappeler sénégalais yi suñu détermination à continuer le combat jusqu'à la victoire ci kàttanu yàlla na nit ñi génn ngoon na nit ñi génn le 29 ñun ñu ngi woon ci décce tey ak ki maam jaara femme ak xale yi suba ajuma ñu ngi ak euh, Ahmed dara après mardi ñu ngi ak euh, Ziguinchor ak Guy Marius Sagna cest à diir dañ koy xeex ba mu mat sëkk te di ñaan askan wi ñu ñëw génn ci suñu gaañu nag dégg naa leen ñu naan euh, dañuy gars yooyu est-ce que ça est-ce qu'ils xam nga déggatu leen leen dañuy làqatu ci force de défense et de sécurité force de défense et de sécurité rolam mooy défendre askan wi ak réew mi kenn amul droit di braquer force de défense contre le peuple qui les qu'ils sont censés défendre qu'elles sont censées défendre excusez-moi donc am na loo xam ni kenn dootu ko seetaan kenn dootu ko nangu force de défense de sécurité nañu bàyyi di tiire ci kaw xale yi nañu bàyyi di dóor ci xale yi xoolal li aw université tey ci démb ci guddi ay nervi lañ jël ñu dugg université di attaqué xale yi ma ne xale yi sax dañu baax gis nga nervi bu fii sa waajur bàyyi nga génn lu la dal moo ko res parce que nag li kenn dul nangu mooy ay nit parce que fay nañ leen dix mille francs quinze mille francs ñuy dóor di jam kenn ki béjjën lañ ko jam ci dox béjjën lañ ko jam ci dox su ko ko fay woon ñu ne rey na rey na nervi xam nga yooyu di am